ngi tudd Talla Diagne di maire di eh, maa ngi dëkk maa ngi nekk dëkk bu ñuy wax Bangaaj Samb li fi doon samay tànk mooy tànku jàmm la waaye tànku kontante la eh, ndax li ma fi tax a teew tey 1960 ba léegi ñu ngi ko bëgg mënuñu ko am muy lan Bangaaj am courant loolu moo tax tey bari naa ay programme waaye programme bu mel nii tey e, waxuma bi ma nekkee maire ba léegi waaye bi ma dëkkee ci commune ak tey nga xam ne yàlla dogal fii laa juddoo fi laa màggee kontante bi ma am tey mosuma ko am. mën nga dellu si ci naka la courant bi ñëwee fii. waaw courant bi ni fi ñëwee mooy e, programme la boo xam ni programme mu état la dama wax ni courant aku yoon état rek moo ko man e, yàlla dogal na président Macky Sall. ci kayam lanu am courant fii ci sama commune ci dëkk bu ñuy wax Bangaaj Samb tey du Bangaaj Samb rek moo am programme tey pour ñu war a taal courant bi waaye nag Bangaaj lanu nekk tey courant bi kenn andiwu ko kudul président Macky Sall parce que mooy président bi nga xam ne nii euh, Sénégal daf ko naman ndax Sénégal jëkkewul ci président Macky Sall waaye ñun ñi nga xam ñoo nekk ci kaw gi Eh, dëgg la ñoo ngi soog a am président boo xam ne yëg nañu ni kaw gi am na président loolu moo tax ma wax ni courant bi mi ngi déparé ci président Macky Sall eh, jaar ci gouvernement am ki mu ko dénk nag mooy ministère bi mu dox ci ay tànk yoo xam ni tànk yu rafet la waaye mu dox ci loo xam ni xam na ni fi mu toll département Kees la rek waaye région Kees la rek waaye Sénégal gépp la fi nekkal mu jëf ci jëfin wu rafet. Eh, yombalal ñu ko wax ne incha rabbi parce que da nga daa gis dëkk boo xam dañ koy samp ay poto mu dem juróomi at juróom-benn at kenn du ko taal waaye président moom dani lu ngeen song na ngeen ko daan ba pare wax nu woonu ñun meer yëpp ni bàyyi leen wax ji tey liggéey waaye lu ngeen liggéey na ngeen ko wane parce que nag sakk jëf baaxul da ngay gis nit koo xam day liggéey ba bis jot ñu war koo génne ñu nëbbal ko lépp loolu nag du gor ngor lépp loo xam ne yàlla dogal na nit def na ko te mu wóor que ni kii su ko neexan mën na koo bañ a def wala su ko dee defit mën naa bañ a mel noona boo taxawee ci sa moroomi gor danga koy leeral ba mu xam ni kii jëf na jëf ju mel noonu président nag jëf na jëf ju mel noonu kon ñun ñi ko war a wax war nañ koo wax ba ñëpp di ko dégg. maire euh, sa commune dëkk la. Euh, sama dëkk sama commune 38 villages la. ñaata dëkk euh, bu ci Bangaaj bokkee tey 11 moo ci am courant. kon jéego des na. waaw des na lu baree bari jéego des na lu baree bari maa ngi ci nag. tooguma ma eh, ndax am naa yaakaar bu baax. dóor nga daa bagaañ mu daanu fooy dóor. Eh, suba ñu ngi war a dóor jaayaan ak dal jàmm. dañ laa bëri loxo bëri luñ ma loxo danoo xam ne ñi gën a sonn ci laa bokk te it eh, département Kees taxawaay bi nga xam ne moom la commune Thiéna commune Thiénaba taxaw ci wetu président dëgg la ma dey kenn taxewu ko waaye kenn demul ñu des. kon taal courant bi réalité yow askanu bagaañ. loo leen di wax ñu fas jëfandikoo waaw jëfandikoo moom comme ni ko ñëpp yi jëfandikoo rek ndax bangaaj eh, ay doomu aadama ya fi dëkk yoo xam ne nii ay gor lañu ay jullit lañu nit ñi nu liggéey nit ñu jàpp seen njàmbur nit ñu ma noppal nag ci sama commune ndax di nga yilif nit mais mu sonal la ci nan la lay sonale bis bu ne mu teg la ay soxla wala bis bu ne mu sonal nga di ko atte ak buur loolu daluma ci bangaaj village modèle la daal oh, non bangaaj tànneef la ci sama commune nit ñu amuk dal lanu nit ñu ami teggin lanu nit ñu yaru lanu mais nit ñeen loo xam loo leen defal ñu naw ko loolu dama marqué ci bangaaj euh, kon mu mel ni bangaaj laa dëkk ndax ñun ñëpp ay bokk lanu tontu laaj bi taal nañ courant bi léegi nag li des yéen la maanaam lamp yàqoo entretien bi ak facture yi. xam nga loolu dama ko doon def avant ñu agsi bangaaj tey communu u Thiénaba dëkk bu fi am courant diggante daaw ak ren li ma ci fere mat na 2 millions yoo xam état bi joxuma ko kenn joxuma ko maa ko defal sama bopp damay yónnee techniciens yi ñu recensé ma lamp yi lamp yàqu maa ko defar. kon daal ko dalee tey lamp yàqu bagaan yaa koy def. bi ma mujjee bi ma ko mujjee def ak léegi matagul 2 euh, euh, mois Canaba maa ko defar Touba yi maa ko defar Canaba Gaar maa ko defar euh, Njaane maa ko defar maa defar Kër Kër Yaaba. maa defar kayre làmp yooyu yëpp bu ci yàqu maa ko defar. kon ba ngaa jërul wax. ba ngaa wax feneen jërul wax parce que andil nañ ma sama commune xam li ma war xam naa ko te dinaa ko def. léegi euh, temps yëpp dégg nañu bi ak directeur suñu daal ku fay ñu coupé courant ce que mën nga ñu leeral diggante ASER ak courant bi ni ñu koy xam nga euh, loolu euh, li tax ñu war koo wax ku la yombalal da ngaa war a xam sa bopp. te wóor la ni courant bi ni mu seere wan parce que boo gisee euh, programme bi bii mag président Macky Sall jël def ko muy politique boo xam politique gu kaw gi la ku ne xam na ni kaw gi amuñu doole kuy xëy dépasse di la të bu facture seeree doo ko mën a fay loolu moo tax boo ko xoolee boo facture bële bu doon doon deux cent sept francs bii cinquante sept francs la loolu moo tax ñun incha bi fësal yéene naa maak sama population ngor gi nu président Macky Sall defal kenn du dikk den taxaw ci facture ñun jomb nañ loolu. parce que kenn mësuñoo fayu bor. kun mës ta fayu bor nag facture lu ma ta wax. tax nga wax ko. non dama xam dama xam sama population. ñu am jom lanu mais ñu am fulla lanu mais ñu bañ ku leen yab la te sa nawle waru laa defal ngor ba pare mu di la yab. di ngeen fay facture daal kooku waxaat.